نيجي سانت بروم بي سبحانه وتعالى دي جولي جونت صلى الله عليه وسلم نيكو ساكو وون كوم دا فا ام لو جوتال ديس تي ميرو دو تري بروغرام بي مانا كونتيني سخنا هايدا يالنا لا يالنا فاي فايل بي سونو درماتولوج في جار سخنا عائشه سو مومتام مي جيكا ديف ما شاء الله ci taar bi nga xam ne moom la yàlla maye jigéen yi ci dagan ak yiñ ci xaraamal te loolu yu ama am am solo ndax ku nekk ci yéen xam ngeen ni thème bi bindoo ci biir séminaire bi jëm ci taaru jigéenu jullit bi bi mu juddoo ba bi muy euh, sàngo suuf euh, léegi nag incha allah ci mawduu bi ñu ñëw thème bi dafa aju ci maquillage nan la ko shariatul islaamiya gisee lan la ci maye lan la ci tere muy mbir moo xam ne jombul ñun ñëpp soxla woon nañ ko ndax euh, ñu ngi dund ci jamono joo xam ni wax dëgg mbir yi day dem ba xaw a jaxasoo day laaj nag su demee noonu jullit bi moom dafa war a delluwaat ci àtte yi borom bi subhanahu xool li ko diine may fi mu ko ko mayee yi mu ko teree ak fi mu ko ko teree yooyu yëpp day tax rek euh, lépp luñ ciy def mu dëppoo sante santaane borom bi subhanahu wa taala euh, incha allah ki ñu war a defal waxtaan boobu nekk suñu mbokk suñu soppe suñu mag soxna Faat Bintu Aaj euh, muy koo xam ni nag yaakaar naa ni ci liggéeyu IFEMS du fi gan ndax ku ko ittewoo la ci yàgg taxaw la liggéey bi bëggal ko boppam moo tax daanaka séminaire bu fi jaar rek ñàkkul gis nañ ko ci ak teewaayam waaye nag thème bi ñu ko jox tam dañ ci am yaakaar ndax mu ngi bokk ci ñi nga xam ne ñu ngi génne ko ci euh, madaaris yi nga xam ne xarakatul falaax ñoo ko ubbi rawatina bi nekk fii ci Pikine fa la ba am fa diplôme di yëngatu nag ci jàng ak jàngale ndax jamono yi mu ngi yore école boo xam ne ah, nekk na préscolaire ak primaire fële ci Liberté 6 te lool yëpp mooy rek bëgg gi mu bëgg ci bay ci tollu islam bi ak yaatal ko kon ci cadre boobu yaakaar naa ni suñ ko dékkee thème bu mel nii am nañu yaakaar bu baax a baax nii incha allah bu ñu taataanee dinañ ci jëlee njariñ kon ñuy ñaan mbokk yëpp ñu teewlu ko ci li nga xam ne moom la ñu àndil kon soxna Fatima tafaddali mashkura bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alladi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu iwaja والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu suñu mbokku jigéen ñi ñoo leen di nuyu di leen sant di rafetlu itamit seen uh, teewaay di kontaan itamit torop ci uh, soxna si fi jaar léegi muy docteur bi ay conseil am na njariñ lool te xam naa ne ku ci topp itam doo ci gis benn rëccu daa mel ni rek ne thème yëpp benn la ndax sotti ceeg def ci rek la kon tey ñu ngi leen indil àtteeg maquillage ak li koy tënk ñuy ñaar rek ne dañ ci euh, teewlu ñu xam ne itam suñu borom subhanahu wa taala lépp lu ñu tere rek da njariñ mu ngi ca biir waaye itam bu fekkente ne dëgër nañu itamit bopp ba daal di bàyyi tere bi topp suñu bànneexi bakkan ay conséquences rek lañ ciy am te docteur bi léegi wax na ko kon dafa nekk ay euh, mbir yoo xam ne yi doomu aadama muy jigéen da koy jël di ko jëfandikoo pour yokk taaram walla pour feeñal ko te ci loolu itam bokk na ci ci moom jigéen bi lépp loo xam ne dafay yokku taaram tamit di ko feeñal nekkul ci loo xam ne dafa xaraam déedéet waaye itam dañuy def benn muqaddima bu ndaw rek balaa ñuy dugg ci biir waxtaan bi léegi dañuy xool lan lañu islaam gis-gisu islaam lan la ci wax ndax dafa nekk moom taar mu bokk na ci xéewal yi nga xam ne yàlla da ko indil jaamam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 kan moo ko sañ araamal ci taar yooyu mu ne yooyu taar de yàlla mu ngi ko jox ñi nga xam ne ñii dañ koo gëm fii ci àdduna ak ñi nga xam ne itamit gëmuñu ko kenn ku ci nekk yaa ngi def sa taar waaye itam xooli sa ten yowmal qiyaama mu ngi ko leen ñi nga xam ne ñii ñoom ñoo ko gëm yowmal qiyaama bu fekkee itam seet nañu tamit taar yi nga xam ne moom la yàlla wax ci alquran taare la ko ngeen xam ne ci taar li yàlla indi ci taar pour fekkee ne bëgg nañ koo xam dañuy xool yàlla nu mu def wa sawwarakum fa ahsana suwarakum gis nga yàlla dafa ñoo bind rafetal suñu bind kon ngeen xam ne taar daf ñu bind ba pare taaralal ñu suñu bind bu fekkee seet nañ tam ci nature inna zayyana samaa dunya bi zinatil kawakib gis ngeen asamaan si bu fekkee dem na ba guddi da ngeen di xool ni ko yàlla di taarale ci ay biddiw yu leer kon ngeen xam ne taal nekkul loo xam ne dafa xaraam bu ñu xoolee itam ci suuf si afalam yanzuru ila samaai fawqahum kayfa banaynaha wa zayannaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij gis nga yàlla dafa taal itamit suuf jël ay montagne ak ay doj yu rëy samp ko ci suuf ba pare itam mu daal di ciy génne ay gàncax yoo xam ne itamit yu taaru la bu ñu xoolee itamit ci taaru ay xayawaan moom mooy ay mala fi yàlla di wax unzuru ila thamarihi iza asmara maa ngi jéggal walakum aywa fi walakum jamaala xiina turixuun wa xiina tusra wa xiina tasraxuun wal xayla wal biraala wal xamiira li tarkabuha gis ngeen xoolal même ay fas ak ay mbaam yoo xam ne dañoo xaw a mélangé diggante fas ak mbaam ak ay mbaam mbaam yi àll ak mbaam gis nga yooyu yëpp yàlla da koy indi pour taarale ko doomu aadama pour taarale ko doomu aadama ak ñoo xam ne ñi tamit dañuy euh, bu ñuy bu ñuy gontu wala bu fekkee ne ñu ngi delluwaat ci seen i kër moom mooy mala yi way la itam bu fekkee ñu ngi delluwaat ñu ngi génn tam ñu leen di yóbbu tamit ci àll gis nga loolu lépp boo fekkee ne gis nga ko dafa ànd ak bu fekke ne dem nañ itam ci ak gàncax wala fruit gañjax wala fruit mu ne unzuru ila samarihi ida asmara wa yanahi xol len bu fekke ne gañjax bi génn na wala itam fruit yi xol bu fekke ne yàlla ñorol nako bu mu génn lool lépp dafa bokku ci ay taar yo xamne moy taaru nature tabiiya la doomu aadama itam dafa wara jangal fofu lan moy taar bi nga xamne yàlla moom moko ñëk taarale doomu aadama ñuy wax itam ci muñ ko rafet ci jikko yu dëgër yu sell mu ne itamit bu fekkee ne yaa ngi muñ na nga muñ muñin bu rafet bu fekkee ne yaa ngi saafonte na nga saafonte bu rafet bu fekkee ne yaa ngi dëddu nit tamit yaa ngi dëddu dara na nga ko dëddoo nu mu gën a rafete dem na ci sax ba wax ne ne bu fekkee ne itamit yaa ngi jotante sa soxna dem ba di ko wàcc na nga ko wàcc ci wànnam bu gën a rafete kon gis ngeen suñu borom subhanahu wa taala gis ngeen lii nga xam ne da koo taarale doomu aadama jox ko doomu aadama pour mu teg ci ay gëtam pour mu di ko dund ngeen xam ne ne itamit euh, taar suñu borom subhanahu wa taala moom moo ko njëkk a euh, bëgg nee nañu an ibnu mas'ud radiallahu anhu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nen laa yadxulu jannata man kaana fi qalbihi misqaala zarate min kibr mu ne du dugg àjjana koo xam ne kii pépp rëy dafa nekk ci biir xolam am benn waay ju ko dem waaw ñun dañu nekk ñoo xam dañu bëgg yëre yu rafet ak ay dàll yu rafet loolu lu mu ci kii lu mu ci euh, jublu moom mooy seetlu nañu ne tey jii ku sol yére bu rafet dàll yu rafet am noo mel rek dangay changer doxi kon kibru dikk na wala itamit changer waxin am neneen noo xam ne yaa ngi koy defee léegi nu róowuloo ak nga nekkoon laata ngay defoo mais si yonent bi daf koo ne inna allaha jami lu ñuy yubbul jamal yàlla de rafet la te tamit dafa bëgg lu rafet loolu taaray boo taar boobu ngay taar nekkul itamit kibri dafa war a dugg ci yow wala leneen dafa war a dugg ci yow dañ la nee ren na nga nekk naturel taar bi ngay taaru na nekk naturel fekk yow raxuloo ci dara kon ay aywa dañu war a waxtaane ci li nga xam ne moom la ñuy yàlla xéewale te itamit yàlla suñu borom tamit bëgg na itam bu fekkee tamit jox na la dara itamit bëgg naa gis tamit xéewal bi nga xam ne gis jox na la ko wala jeexitu xéewal bi nga xam ne may na la ko mu dellu wax ne wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis bu fekkee ne yàlla jox na la am na lu mu la jox tamit danga koo war a waxtaane sante ko sa borom te lépp loo xam ne itamit dafay taaral jigéen di taaral góor moo xam góor la wala jigéen la ci chariatul islam lañ koy tënk toujours bu fekkee ne yaa nga xamne ne amna lo bëgg def ci tar dang ko wara teunk ci chariatul islam kon li jital waxtan bi rek la won pour ñoo xamne rek ñu yàlla suñu borom subhanahu wa taala tar ci mom la joge te mom mo ñëk tar te ci tar tam mom la ci mom la joge te daganal nañu aussi tam ñu daal tar way dafa am itam ak anam no xamne mi mën nañ ko taro noonu léegi bu fekkee ne def nañu ci jital waxtan bobu léegi dañuy jël ci dañuy ñëw nag ci àtte maquillage bari na itam ci ay euh, boromi xam-xam ci suñu jamono tey dañu daganal maquillage ci jigéen bu fekkee ne amul ab lor comme ça ko suñu docteur bi am na luñ ci wax yu bari loraange boobu itamit ñun est-ce que dañ koy seet dañuy jiital suñu bànneexi bakkan xool taar ba jéemuñu gëstu sax li nga xam ne li ñu ngi koy utiliser ci suñuy yaram yi est-ce que dinañu lor wala lor la wala duñu lor loolu moom moo waral ci gis-gisu tey gii ci mboole mi borom xam-xam yi nee nañu mën nga koo utiliser waaye demal nga seet bu fekkee ne itamit amut lor bëgg ngaa feeñal sa taar bëgg ngaa yokk sa taar mais seetal li ngay taaraloo sa yaram est-ce que du nekk lor bu fekkee ne seet nañ ci benn. dugg nañ ci internet bi am na benn sit boo xam ne bii mu ngi tudd Mawqi Islam foofu dañ fay laaj ñu fay tontu ñooñu nee nañu kat ne taar jigéen dagan ci muy taaral boppam taaral kanamam waaye itam taar boobu kan la ko jagleel borom kër lislaam shariatul islaam dafa ne bu fekkee ne yaa ngi taaralal sa bopp taaralal ko sa borom kër waaye tey ci tey balaa ñuy taaru rek day fekk ne ngi génn ci bitti kër gi yow ni nga yeewoo noonu ngay demee marché noonu ngay toggee noonu ngay yàqalee sa boroom kër ci xetu waañ boobu boo moytu itamit bu dal si tisbaar fekkee mbaataa ko saan noonu ngay jullee waaye bu dara desul na yaa ngi génn yére yu gën a baax parfum yi gën a baax moom ngay def kon soxna yi kon ku ci amoon nekkoon aaw bu ñu la takkalee ñaareel yaa ko teg sa bopp ku ci nekkoon ñaara bu ñu la takkalee njabtal tamit yaa ko deg sa bopp ndax ne ñëwuloo di taaralal sa borom kër waaye yow dangay taaral mbedd mi di taaral borom jëkkëru jàmbur yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci mbedd mi te loolu islam da koo xaraamal di fàqal kon dañuy wax ne fii itam bu fekkee ne itamit jigéen ji nga xam ne mu ngi taaralal boppam wala itamit mu ngi yokk taaram bu fekkee da ciy jublu ak faj muy faj yaramam loolu de amul benn euh, amul benn loo xam ne lii tamit mën nañ ko cee tere ndax am na benn bis maa ngi dégg benn jigéen mu ngiy naan dafa dem ci dermatologue ñu daal di koy bindal benn garab waaye garab boobu ñu ko bindal da koo xeesal waaye docteur bi da koo ne bu fekkee ne wér nga danga bàyyi waaye est bu fekkee ne mbirum taar dugg ko mën na am mu daal di koy continuer daa iman loo xam ne li rek moom moo ñuy lor ñun ci lor rek la ñuy yëngatu du ñu jéem a seen bii produit ndax bu fekkee ne def nañ ko dinañ ci am benn problème wala duñ ci am problème ndax docteur wax na ko sànq nee na bu fekkee ne yaa ngi utiliser dara def ko ci benn place bu fekkee ne jig na la alhamdulilah bu fekkee ne jigul alhamdulilah waaye itamit xoolal li ñu yàlla bindee ñun ñi ñu ñuul ñi am na loo xam ne li def na ko ci suñuy yaram te def ko ci yaramu tubaab yi. waaye loolu bu fekkee ne génnee nañ ko ci suñu yaram rek muy produit yi bon yi ak loolu nga xam ne ñu ngi koy utiliser loolu mën na am tamit feebar bu ñëw ak lépp lu ñëw dafay gaaw a attaqué suñu yaram te loolu mën na indi loraange kon ku ñu wax ne benn mufti bu mag mu ngi nekk Màkka mu ngi tudd nekkoon Màkka mu tudd Cheikh eh, Ibn Baz rahimahullah yàlla na ko yàlla yërëm moom tamit mu ngi ci indi ci mbirum taaral mu ngi wax ne ne. ci mbirum rouge à lèvres mu ne loolu itam bu fekkee ni itam def nañ ko loolu amul benn euh, mbir amul benn loo xam ne li daal islaam dàq na ko daal nanganaam nga def rouge à lèvres loolu daal islam dàq ko waaye dafa ne liñ ci jublu bu fekkee ne yaa ngi def rouge à lèvres na ko defal sa borom kër mu yem sa diggante ak sa borom kër waaye bu fekkee da ngay def rouge à lèvres dem mën nga génn nga daal di am benn fitna boo xam ne fitna nga ko ay ñeneen comme ni ngay taaralee sa yaram tamit ngaa génn tamit nga taarale noonu ko sa yaram nga daal dem fitnaal ñeneen kon liñ ci wax daal bu fekkee jigéen bi yaa ngi taaralal sa bopp na nga dëppoo ci li lislaam moo wax fekk bu fekkee ne yaa ngi taaral itamit euh, sa bopp itamit na nekk itam ci sa biir kër wala mu nekk ci sa biir néeg ndax bu fekkee ne yaa ngi sëy kooku rek moom moo war a gis euh, taar bu fekkee tamit sëyuloo am noo def tam ba yàlla may la tamit yaa ngi sëy bu fekkee ne bu boobaa itamit mu nga koo def waaye itamit liñ ci jublu moom mooy sa kanam ak say ñaari dénk ak say ñaari tànk kanam gi mën nga koo taaralal ba mu fës loxo yi mën nga cee def tamit say façon jaaram say façon lam loolu lépp ci siina la itamit mën nga itamit def sami say tànk parce que léegi am na sax ñuy jël ay chaîne du ko def seen tànk est-ce que loolu islaam loolu la wax jigéen mën nga koo def naan waaye moytul di ko génne ci biir mbedd mi moytul ñeneen di ko gis parce que jigéenu jullit am na nu mu war a mel jigéenu jullit am na ay acte yoo xam ne yi yàlla da ko ko jox pour mu daal di ciy tënku waaye bu fekkee da ngay génn nag pour ñeneen gis ko ne nañu loolu laay jus loolu moom daganut li war jigéen moom mooy mu dadi sutural yaramam li war jigéen moom mooy mu dadi neub arwa awraam moy suñu borom subhanahu wa taala rek limu wax ci alquran ci ya ayuha nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisaai lmuminin yudnina alayhinna min jalabibihin mooy suñu borom dafa wax foofu ne yow yonent bi salallahu alayhi wa sallam waxal say soxna nga wax itamit say euh, say say jaboot ak képp koo xam ne kii da koo gëm muy jigéen joo xam ne dafa gëm boroomam mu ne daal di jël jilbaabam teg ko ci yaramam mu bañ koo génne waaye gis nga tey ci tey bu fekkee ne loolu def nañ ko dañuy laaj ne islaam dafa metti islaam dafa dafa ñu tëj daf ñu def daf ñu def ci benn coffre boo xam ne bi daf ñu cee tëj islaam kenn mënu cee dund lu tax mënuñoo féex islaam mënuñoo féexal waaye lépp lu yàlla def bu ñu seetee ci ginnaaw gi rek dinañ ci gis suñu njariñ waaye bu fekkee itamit bàyyi nañu xool leen fitna yi nga xam ne moom moo xew tey gi ci àdduna lan moo ko waral moom mooy jigéen ñoom ñooy agressé góor ñi bu njëkk ba góor ñi daaw ñoo ñoo doon agressé mais léegi jigéen ñooy agressé yow mën nga génnee ni nga war a génnee ci sa biir kër waaye yow seetal ndax amuloo benn loraange boo xam ne bii defoo ko doomu aadama te yëguloo ko am na ci ñoo xam ne ñi dañoo faible mënuñoo téye seen bopp rafetaay la ñuy bañ a gis loolu am na lu mu leen di def am na loo xam ne lii mën na leen jural ay loo xam ne yii yow yaa leen ko teg xool leen fitna itamit yi am léegi fitna yi dañoo bari ba nga xam ne ne la xewoon démb léegi xewaatul tey agression bi am tey gi ñu ñun ñoo ko teg suñu bopp parce que ñun ñoo yemul ñoo yemul fi ñu war a yem loolu moom moo tax seytaane bi daal di gën a am doole waaw gën ñoo fitnaal di fitnaal suñuy fitnaal ñun fitnaal suñuy njaboot te kon tënku ci li nga xam ne lii moom la yàlla wax loolu lu am solo la bu fekkee demaat nañu itam ci li nga xam ne moom la suñu borom wax tamit ci alquran bu tedd bi wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min warai xijab dalikum athar liqulubikum wa qulubihinna gis nga comme yàlla moom moo mën a waxanteeg soxnaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñun fan la ñu nekk ñun ci ci ban monde la ñu war a nekk tey ci ban àdduna la nekk tey àdduna bu jaxasoo la ñu nekk tey nee na saxaaba yi bu fekkee ne am na loo leen di laaj soxnaa yonent yi loo leen di laaj lu mel ni matériel wala lu mel ni dara loo xam da ngeen koy laaj laaj leen ko ci gannaaw bu fekkee ne muuru nañ seen yaram ba pare waaye xoolal tey gi mureeku bu ñu mureeku tey gi di wane suñuy awra yi yaakaar ne loolu moom moo tegu ci temps laakaar ne nag na loolu moom moo ñuy indi tey gi euh, ay euh, moom moo ñuy indil avancement ci jigéen bu buñ la waxee na nga muuru nga ne man du ma ibaadu yéen ibaadu yi yéen seen mbir dafa dafa xaw a dafa metti bu la te gis ngeen pastel li ci nekk léeg-léeg dafa yàq ay bët am na sax na yenn point yenn kii yoo xam dañ koy dugal sax ci bët yi benn ay genre per yu verte yoo xam yenn façon façon yu bari la yow dañ koy dugal ci bët xoolal bët mu sensible nga daal di koy jël loolu lépp bëgguloo ci lu dul taar kon xam nga fi mu nekk nii ak loraange ñëw na loraange boo xam ne bii mun nañoo indi loo xam ne kenn xamu ko gis ngeen tamit sànq nu mu tuddati xeesal bi nga xam ne indi na ko xeesal bi mu indi dafay dem ba yàq sa yaram indi la cancer du peau indi la leneen ak leneen ay gàllankoor yoo xam ne yi produit yi nga xam ne moom la yàlla defoon ci sa yaram yooyu lay rocc ba mu set wecc xool leen jigéen joo xam ne ji moom tamit da doon maquillage fi ñu ko fekk dafay maquillage bu maquillage am dañee wala deful maquillage boobu jigéen lan lay nuróol nit ki dangaa war a nekk naturel ni la yàlla sàkkee ni la yàlla bindee noonu nga war a bàyyee noonu sa bopp bu fekkee ne yow wóolu nga sa bopp feem bi nekkul ci naa def diw xeesal wala itamit naa sol yëre yu rafet wala itamit naa def ay jaaro wala naa def lii wala naa def lii déedéet du foofu taaru jigéen mu ngi nekk ci biiram nit ku nekk xam ne ne saw sa taar naka la war a mel set mu ngi ci sol lu set itam mu ngi ci bu fekkee ne yaa ngi jiital xamal looy jiital ndax loolu lépp ci taaru jigéen la bokk am na ci jigéen ñoo xam ne ñu xamuñu nu ñuy jiitalee yow dangay ngay jaxase fii nga sol lii wala nga sol lii wala yooyu yëpp ci taaru jigéen la nekk mën na am tamit noo xam ne ñun mën nga koo sete ci sa biir yow. taar bi nga xam ne war nga koo woon tamit sa boroom kër itamit euh, bi mën nga war a wan ci mbedd mi boo ko wanee sa borom kër foofu lay safe ndax foofu lay gën a bëggee foofu la lay gën a nawe kon kon tey gi ana ñun tey gi jigéen di tey fan la ñu war a nekk bu fekkee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla nee na ko bu fekkee ne saxaaba yaa ngi woote ñu ngi waxanteeg say waa kër nañuy waxtaan ak ñoom wala ñu wax ak moom ci gannaaw bi nga xam ne muur nañu seen yaram waaye itamit tey gi yow doo yàkkamte lu dul sa borom kër mu ngi war a am ay gan wala sa kër dafa war a feste gi ay nit ba nga génnee say taybaas wala ba nga génnee say marinière wala ba nga génnee say yu xat wala say yu transparent wala yu pour ñu ne jabaru diw de nangam la wala ñu ne doomu diw de nangam la wala ñu wax leneen ak leneen fekk yow yaa ngi jéggi lislaam yaa ngi bàyyi lislaam li nga xam ne loolu la la yàlla suñu borom sant ak yontam nga dem def jële la loo xam ne loolu moom moo moom moo la euh, arrangé te loolu la arrangé nekkul ci loo xam ne lii lu baax la muy jëfandikoo maquillage bu fekkee ne da koy lor yellul ci jigéen kon ñu ngi wax ne Cheikh Ibn Ba kii euh, ba tey mu ngi wax ne Ousseyn tam mu ngi wax ne bu fekkee ne itamit maquillage am na lor ci yaramu doomu aadama yellul nga daal di koy def yellul nga def ko waaye itamit bu fekkee ne itam yaa ngi koy def demal ci docteur bu fekkee ne nee na la produit bi mën nga koo def nga def ko bu fekkee ne tere na la na ko bañ a def bul ko def. waaye tey gi ñun suñu produit yépp marché la produit yi nga xam ne moom lañuy ñuy jëlee bitim réew di ko indi fii nekkul produit yu baax produit yu yàqu la wala produit yoo xam ne yi yu yàgg la ñu koy indi di ko publicité fii ci télévision yi ñu koy jaay ci marché yi yaa xam ban prix lañ la koy jaay waaye yow daal comme produit bi xew na rek yow dangay xew ànd ak moom te xamuloo produit bi boobu lan la lay moo tax ñu ne toujours bu fekkee ne maquillage daf lay lor loolu waruloo koo def itam bu fekkee ne yaa ngi koy jëfandikoo demal nga dem seeti ji docteur mu xool sa der yaram xool produit bi nga xam ne bi moom moo méngoo ak yow nga daal di koy def te sànq wax nañu nature bi nga xam ne moom moo nekk ci suuf docteur bi sànq wax na ko am nañu ay produits yoo xam ne yàlla moom moo ñu ko saxalal loolu mën nañ koo utiliser bu fekkee ne xam ne naka lañ ko war a moom moo gën produit yi nga xam dafa am hydroquinone yàq li nga xam ne moom la yàlla defoon ci sa yaram jox la leneen loo xam ne itam mën na la indil ay gàllankoor wala ay feebar yoo xam ne pour nga amaat tin bi la yàlla joxoon sax dafay jafe pour nga daal di koy amaat est-ce que ndi sax di nga ko amaat itam bu fekkee ne itam seet nañu loolu war nañ cee bàyyi xel kon loolu bu baax bu fekkee ne kam ci àtte islaam am na ci ay charte yoo xam ne nit ki mën na koo jëfandikoo taarale ko yaramam bi ci jiitu mooy lépp loo xam ne lii yaa ngi koy def dagan na waaye itam daganul ci beneen góor joo xam ne ji nekkul koo xam ne kii ku la dagan la comme li yàlla wax wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ñenn ñi nee nañu kanam bi la ak ñaari tënk yi ñenn itamit nee nañu itamit li nga xam ne moom moo nekk sa yaram ndax suñu borom dafa ne bul wane sab taar xanaa lu feeñ ci yow mën na nekk ay yëre bu fekkee ne zina la loolu dafa xaram ci jigéen mën na itamit nekk na tamit ay maquillage wala nga jël euh, tatouage nga def ko ci seeram yaram wala nga daal di bënn say nopp yaa xam bënn sa bakkan loolu lépp am na fi ba ci bëti sax ci kaw bëti sax dañ koy bënn yooyu yëpp tamit am na jël ay jaaro walla jël ay euh, ay lam wala jël ay jaaro tànk wala ay lamu tànk yëpp mën na ci nekk waaye benn bu ci nekk rek ne dañ la ne loolu waruloo ko feeñal bu fekkee ne sa gis-gis foofu pour wane sa taar la bu dee ci yére yi dañ cee war a maandu bu dee ci tamit ci yaram yi tamit dañ cee war a maandu mooy tamit ñaareel bi ñu bañ a def colkaay yéeféer yi nga xam ne ñoo ñu amuñu diini mooy ñu leen di toppandoo ak ak kàccoor yi ndax gis nañu tey gi bu fekkente gi sol balaa mu ñuy neex rek moom mooy muy sol bu gàtt tey boo xam ne bii ci sa jumbux lay yem xam ngeen tur yi bëgguma koo tudd ay am na ay tebaas yoo xam ne yi tamit dafay jàpp say wenn tënc ko ñu yaakaar ne loolu itamit taar la ñu daal di sol itam loo xam ne lii lu yaraax la sa yaram yépp dafay feeñ sa jiitalukaay sax dafay feeñ am na ci ñenn ñoo xam ne seen jiitalukaay mu ngi yem ci seen lupp yi wala ñi mu ngi yem tamit fii ci seen oom yi li ci des yépp dafay feeñ loolu ay col ko yoo xam ne yi nekkul col ko gislaam loolu ay col yoo xam ne yi occidentaux yi ñoom ñoo ko fi indi ñu taaralal ñu ko rafetal ñu ko ba mu sax ci suñu bopp ba nga xam ne te gi bu fekkee ne defuloo ko rek ne am loo sol ba ci ñun suñu ma jigéen ñu mag ñi sax dañuy jël ay brodé yoo xam ne yu bënn bënn la yooyu danga koy sol amaana am na yoo ciy jiital wala ñàkk bañ cee jiital nga daal di koy sol pour lan pour taar pour sa yaram feeñ pour sa forme feeñ pour sa lépp daal di feeñ est-ce que loolu dafa tegu ci islam déedéet moo tax ñu daane nañu moytu sol ay yére yoo xam ne daf ñuy nuru nulu ci ñoo xam ne ñoo weddi seen borom ñi nga xam ne gëmuñu seen borom ak ñi nga xam ne yi ay colu kàccor yu yooyu dañ koo war di moytu mu ne itam war nañoo bu fekkee ne itamit bu fee lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom itamit mu lu mu wax ne man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum léegi dañuy toppandoo ñi nga xam ne ñii ñooñu ñoom ñooñu indil ay euh, problème muy occidentaux yi euh, mooy li may faral di wax rek saa su nekk feebar yépp nga ci biir kër yi muy télévision ya portable yi bu fekkee ne dugg nga ci lépp nga ciy gis façon soline façon maquillage façon make up façon bu nekk loo ci soxla dinga ko ci gis moo tax yonte bi nee na képp ku toppandoo ñoo ay ñooñ yaag ñooñ yéen yéen a bokk ndax yaa ngi dëggal li nga xam ne li ñu koy def nañu xool diggante ñaari soline yooyu yow sol nga lii kii tamit muur na yaram nañu xool loolu rek même bu fekkee ni image nañu foofu loolu nañ ko xool est-ce que lii ak bii benn lañ kan la ñuy gën a mën a kan la ñuy gën a jox gëdd ak kan la gën a warmaal ak kan te li ci gën a yéeme col yooyu ñoo gën a cher ci njënd mi te itamit ñoo gën a cher itamit ci ñaw bi te amaana itam bu fekkoon yoroon nga sa benn 5000 francs rek mënoon nga tamit jënd ji loo xam ne mën naa suturaal sa yaram leneen li ci des itam mën nga koo économiser. kon ñu war a xam ne ne lépp loo xam ne rek suñu borom tere nañu ko rek ay loraanga yu bëri mu ngi ci biir itamit euh, ay waa ñàkk itamit euh, ndite aussi tamit ak dem di jiggaani ji tamit feneen foo xam ne fii tamit nekkul suñu yëf loolu aussi tamit mu ngi ci kon ay loraange rek la ñuy jural mu ne ñetteel bi mooy nga bañ a utiliser loo xam ne lii dafay lor sa yaram dafay yàq sa yaram fay dem ba nga xamne yow mi ci jàmm nga nekkon dem ba indi la problème mu stress ndax yow ni nga mel tar nga ci doon jaabut waye mu gi legi sax pour nga genn dem fenen, problème bu reuy la ndax bo yaqé sa yaram lo sol dotul jagati lo defati ci sa yaram wala sa kanam dotul rafetati parce que nga topone xayu topon topone itamit mbaye aduna toppoon itamit taar taar yoo xam ne tamit xamuloo fenn fa la fu mu la war a jëme loolu nga toppoon ba yàq sa yaram ba mu indi la ay gàllankoor foo mën foo bëgg foo mosoon a mënoon a dem léegi dootoo ko mënati da ngay téye sa bopp téye say tànk parce que da nga indi say bopp ay mbir yoo xam ne tey gi kenn bëggatu laa gis ku la gis daf lay seex lu fekk lool yow yaa ko liggéeyal sa bopp kon toujours dañoo war a déglu ah, suñu borom lu mu wax wala yont bi ndax wax na ci xadisam sallallahu alayhi wa sallam laa dégg foofu itamit bul lor te bul lore yow bul indi benn loraange ci bul lor kenn te bul indi benn loraange boo xam ne bi dafay lor ci sa yaram kon li ñu fay mën a déggee rek nañuy moytu loraange yi bànneexi bakkan yi nañ koy moytu ndax bànneexi bakkan yi moom moo ñuy yóbbu foo xam ne fii ah, foo xam ne fii tamit fu fu baaxul la ndax yow bu fekkee ne gis nga kii rafet na xeesal na xeesalaayam bi rafet na nga ne yow danga koy eh, nu mu tudd da koy da koy toppandoo te xalaat ne yow mii lii kii li mu def lii fan la koy mujjee la xeesal bi muy def fan la koy jëmee est-ce que du yàq ay liquide yoo xam ne yàlla defoon na ko ci yaramam comme ni ko docteur bi sànq waxee est-ce que mënu koo indi tamit ay problème yoo xam ne yi ay heure genre heure yooyu mënu koo indi ndax am na ci ay jigéen teg yi seen doq yi dafa am heure bu dafa dafa mel dafa am luñ fa def dafa mel dafa jël dañoo jël benn rek daal di ko fay teg. wala kanam bi itam bu fekkee ne yaa ngi koy xool tamit yii dafay vert yi dafay ñuul yi dafay rouge kenn xamul fekk yow yaa ko liggéeyal sa bopp seytaane wombat na la ba nga liggéey loo xam ne lii itamit waruloo ko woon liggéey kon li ñu fi wax rek ne moom mooy sama mbokku jigéen ñi dañoo war di moytu ñi war di tamit di yeetente ci li nga xam ne lii moom la shariatul islaam indil ñu ci mën a defar suñuy euh, yaram mën a defar itamit suñuy bopp mën a indi tamit ay taar yoo xam ne yi tamit euh, taar yooyu du ñu mën a lort du ñu mën a indil ay gàllankoor ñu moytu itam di taaral yoo xam ne itam bu fekkee ne génn nañ ci biti tamit yeneen góor yoo xam ne waruñu woon koo gis ñu daal di koy gis te loolu itamit daganul ci ñun li war ci ñun daal ñun mbokk julliti moom mooy nañu ragal yàlla nañu ragal yàlla te itam bu fekkee ne fatawa lañ na daa ima wax na itamit terewuñu maquillage mën nga jënd sa outil yépp nga daal di koy teg def ko ci sa biir néeg loolu kenn terewu ko waaye itam bu fekkee ne yaa ngi koy def seetal fi nga koy defee seetal fi ngay defee say maquillage seetal fi mu safee nga defee ko foofu ndax mbedd mi kenn wax la danga ko génn nga def ko ndax boo ko defee tam di nga gis keneen koo xam ne kii moo la daq def maquillage mu ngi koy def nañu xool tey gii koo xam ne kii nu muy euh, defee maquillage nu muy génnee peinture bu muy peinture kanamam bi yow da ngay dem ba nga xam ne sax bu fekkee ne amaana sax bu dindee peinture yooyu muy def ci kanam est-ce que yow di ko gaaw a xàmme déedéet ndax yaa ngi jël ay produit yi nekkul sax benn yoon rek nga def benn mais da ngay jël ay produit yi jaxase ko bii nga def bii ka teg ko njëlaat beneen couche defaat beneen couche defaat ba nga def ni nga xam ne noonu la la sa xel may nga door cee defaat yeneen peinture yeneen peinture yow lan la lay jural. nga daal di koy bayyi pendant 1 heure de temps wala 4 heures de temps bu fekkee ne yaa ngay dem xew wala ya ngay dem fenn itam nga daal di bàyyi. itamit amna ño ñoo itam mën nga defar sa bop amna ño ñoo xam euh ñuulal dafa haram amna ño ñoo xam ñuulal haramul bu fekkee ne yow da nga am sa borom ko nga koy ñuulal amna ño ñoo xam bobu haramul nañu waaye bu fekkee itam da ngay ñuulal itam nga daal di koy génne ci mbedd mi pour nëbb karaw yu ñuule wala taaral sa bopp itamit loolu itamit am na ñoo xam ne dafa xaram waaye lu ci mënta nekk rek ne allahu alam yàlla moom moo gën a xam itam bu fekkee ne ñoo ngi jël tamit du nuru nuru ñi nga xam ne ñi itamit ñoom ñooy nga xam ne ñoom ñoo weddi seen borom fan lañ ko teg teguñu ko ci benn charte ci benn charte teguñu ko ci li ñu am daal ba am moom mooy nañu moytundiku di génne ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo ñu araam moom mooy góor ñi nga xam ne dañoo araam a gis suñuy yaram wala a gis itamit euh, suñu ni ñuy comporté bi ñuy génnee di leen ko woon ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna al marata tuqbilu fi surati cheytaan wa tudbiru fi surati cheytaan gis nga xoolal loolu rek yow dafa am yenn yoo xam ne jigéen ji da koy def ba boo ko gisee sax doo ko am na ci ñoo xam ne seen maquillage boo leen gisee yow sa bopp da ngay tiit da yaakaar ne kii du doomu aadama da nga yaakaar ne kii du jigéen jigéen bu fekkee ne dangaa naw sa bopp bëgg sa bopp wóolu sa bopp am na noo war a defe yaakaar naa ne jigéen du maquillage moom moo koy mottali jigéen du maquillage moo koy mottali jigéen am na leneen yeneen feem yu ko war a mottali fekk nekkul maquillage bu fekkee ne yow wóolu nga sa taar wala wóolu nga sa bopp am na yeneen yow war a def fekk nekkul maquillage mais jigéen buy maquillage bés bu nekk rek kooko dafa wóoluwul boppam wala dafa ragal boppam mën ngaa génn defaru sol sa yére yu baax daal di dem ca xew yow ak ki maquillage doo leen mës nekk benn parce que yow naturel nga def yow sa maquillage am na foo koy def waaye yow sa maquillage am na foo ko dul def parce que da nga jël ci chariatul islam nga daan ne man sama maquillage fii laa koy def dama tënku ci l'islam lu mu wax. kii tamit dafa jël maquillage am ñàkk ba ñu tënku ci l'islam lu mu wax léegi nañu xool ñaar ñooñu seen mujjantal fan lay teeree ki nga xam ne kii bés bu yàlla sàkk bu yeewoo maquillage buy taaj añ maquillage buy reer maquillage wala bu to bu jëkkëram di ñëw maquillage. lolu mën nañ faa ne loolu foofu moom la maquillage am place wa yow do maquillage doo defaru amuloo amul amuloo dara ludul yow yaangi teunk tënk say yëre ci sa bir armoire yaangi ngi denc say maquillage say make-up ci sa bir armoire yow bu fekkee ne yaa ngi génn ci góori jàmbur yi wala yaa ngi génn ci mbedd mi ku la gis ne jabar diw a ko rafet doomu diw moo ko rafet loolu fan nañ ko teg bu fekkee ne itam bëgg nañoo tënku ci chariatul islam foofu du place am fii place am kay moom mooy ci sa biir kër wala sa diggante sa borom kër lu foofu moom mooy place am léegi bu fekkee itamit ñëw nañ ci li nga xam ne lii moom mooy li nga xam ne moom mooy liy tënk euh, nu mu tuddati euh, li nga li ñu doon wax lii fii bu nekk li ci àttee euh, maquillage bi ci naka lañ koy utiliser mooy am na ci ñoo xam nañ même poudre bi bu fekkee ne yaa ngi koy def muy suñu jamono yi tey ak jamono yi nga xam ne itamit euh, yu yàgg la bu njëkk ba ay poudre boobu ma xewoon ay fond de teint ak yeneen ak yeneen yéegi génne nañu leneen lépp loo xam ne yaa ngi koy def daal ci pour tënk daal nee nañu loolu dagan na waaye itam loo xam ne itam dafay taaral dafay jëmmal sa taar loolu itam dagan na waaye yàlla na fekk ne mën nga koo diddi ci kaw bu fekkee ne yaa ngi euh, ci ñetti charte yi bu fekkee ne itamit xam nga ne ne lii nga def ci sa yaram wala lii nga def ci sa kanam ci biir ñetti charte yi bu fekkee ne mën nga koo dindi loolu itamit dara nekku ci loolu dagan la ndax utiliser li nga xam ne lii moom moo lay lor loolu benn dinga ci am ay gaañ-gaañu xol ndax doomu aadama mënul supporter li koy metti ñaareel ba aussi sa diggante ak sa borom aussi dina am tamit nu mu mel ñetteel bi itam bu fekkee ne yaa ngi euh, euh, nu mu tuddati waaw ci bu njëkk bi li ñuy wax ne li nga xam ne yaa ngi ko utiliser yàlla bu mu nekk loo xam daf lay lor waaye bu fekkee nekk na lu lay lor itamit da nga koo war a bàyyi comme li ñuy wax rek ne ci yant bi sala salaam tam ñu koy bantuwaat la darara wala diraara waaw bul nangu itamit euh, bul lor te tam bul loru waaw bu bul indi bul indi benn gàllankoor boo xam ne bi itam dina la lor war du itam bul ñaareel bi itam bu fekkee tamit dangaa jël tamit euh, puudar sa kanam walla am yenn yoo xam ne def nga ci def ci poudre def ci fond de teint dafa mel dafa jël da jël benn matière rek comme genre matière plastique boo xam ne da koo def ci sa yaram léegi jigéen ñi nag léegi bu fekkee ñu ngi koy def bu leen tisbaar fekkee wala tàkku sax wala benn waxtu fekk leen ci duñ ko nangoo dindi wa illaa bu fekkee ñu ngi koy dindi itamit euh, buñ ci tuuree ndox mi ndox mi dafay rogalaat rek waaye du yegg ci deru euh, ci ci deru yaram bi du ca yegg ñu sopp woon foofu itam bu fekkee ne def nga ko li gën moom mooy na nga ko dindi nga raxas ko ba mu set laata ngay jàpp wala itamit laata ngay sangu-sangu set loolu da nga koo war a dindi warloo cee nekke rek ba nga xam ne yow la ci waxtu fekkee yow noonu nga koy bàyyee itam loolu nga xam dañ koy def pause xef yooyu dañ ko ciy def waaye jigéen ñi gis nga dañ ko ciy def nekkul waxtu bu nekk da nga koy dindi ndax saa yoo ko defee da nga koy bàyyee noonu ba nga xam ne léegi sa heure euh, jot na wala jeex na fi nga bëggoon a dem dellu siwaat nga nga doon koo dindi mais est-ce que waxtu yi dinañ la mën a xaar ba nga dindi ko benn waxtu du la mën a xaar pour nga dindi ko kon bokk na ci charte itam bu fekkee def nga say poudre del nga tamit sa maquillage def nga ko ci sa bu fekkee ne waxtu fekk na la ci da nga koo war a dindi wala itamit euh, pose ongle yi loolu lépp tamit ci ziina la bokk loolu itam bu fekkee def nga ko mën loo koo dindi waxtu bu nekk nga daal di koy dindi tafaat ko ci sa ci si say we moom ak pose kii nu mu tudd ci sil yi loolu yëpp mun loo koo def waaye itamit am na ñoo xam ne ñi itam bu fekkee ne def nañ ko mën nañ ko caa bàyyi ba saa yu leen neexee ñu daal di koy dindi loolu itamit nekkul ci li nga xam ne lii moom la euh, lislaam wax waaw li gën daal lii nga xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy répété waat moom mooy bu fekkee ne yaa ngay koy def def ko ci anam bi nga xam ne noonu la ko yàlla bëggee nga bañ koo def ci anamu góor yi nga xam ne ah, ñooñu euh, dafa dañoo euh, euh, nu mu ci moom mooy góor ajna bi yoo xam ne mooy góori mbedd yi nga xam ne yow séquloo ak ñoom dara mën nañ laa takk wala mën ñoo naka lañ koy waxeeti moom mooy góor ñi nga xam ne daal ñoom daganuñ la waaw daganuñ la ñooñu warloo koo def foofu warloo ko faa def comme suñu borom tamit dellu siwaat na ci wax bi wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha mooy yow bu fekkee ne yaa ngi taaral taaral li nga xam ne li moom la yàlla feeñal ci yow moom mooy say yére te yére itam warul nekk benn zina boo xam ne bii tamit war ko koo jënd di ko sol pour won nit ñi façon yére bii nii la wala itamit kanam bi nga xam ne moom la la yàlla wax moom la la yàlla jox pour nga wone ko warloo cee wane ay taar di ko puudar di ko maquiller di ko pastel wala di ko euh, def naka soo xam ne si du noonu li nga xam ne moom lañu ñu jagleel jigéen pour mu darf ko moom mooy bu dee yaa ngi taaral na ko taarale fi nga xam ne fii foofu la jar muy sa diggante waajur wala itamit sa borom kër wala itamit say diggante yéen jigéen ñi ndax nee nañu sax na ci dëkku euh, nu mu tudd ci dëkku arab yi ñoom bu fekkee ne ñu ngi xew góor ñi dañuy nekk ak côté jigéen ñi itamit dañuy nekk ak côté foofu bu la neexee mën nga fa dindi sa hijab foofu bu la neexee mën nga fa dindi sa musóor foofu bu la neexee mën faa def lu la neex ci diggante ay jigéen mën nga fa tuuru parfum mën nga fa def lu la neex ci diggante jigéen ñi waaye à part loolu comme ñun fii euh, suñu Sénégal gi góor ñeeg jigéen ñëppay bokk ñëppay bokk ci xew bi yow léegi noo mënta def rek na la leer na am na beneen góor boo xam ne bii mu ngi léegi si biir nu mu tuddati ci biir ci biir xew mi te loolu islam islam da koy dàq waaye waa li nga xam li nga xam ne lii daal moom mooy loo xam ne lii dafay lore loolu war loo koo xam ne kii danga koy def wala itamit am na ci ay ñi jigéen ñoo xam ne dañu am ay heure ci kanam wa illa dañuy am tamit ay lakk-lakk ci kanam wala am na noo xam ne ni seen yaram da seen kanam am na nu mu mel loolu mën nga koo yi mën ngaa defar jël poudre masqué ko ndax bu fekkee dugg nga YouTube di nga ko gis da nga gis ay genre ñi ñi mel noonu seen kanam yi dafay xaw a am ay problème ñooñu dañ leen di defaral makiyage defaral leen bu fekkee ni ñu ngi génn pour loolu pour suturaal ayib yooyu. wala ñuul ñuul yooyu nekk ci seen kanam loolu lañ la wax waaye waxuñu ñu la nag bu fekkee ne def nga boobu nu mu tuddatil bu dee def nga euh, matière boobu ci sa kanam ba nga xam dafay nëbb euh, dafay nëbb ayib yooyu nekkoon ci sa kanam waaye kenn waxu la itam nga daal di ciy teg ay maquillage daal di ciy defar kanam bi wala daal di ciy defar tuñ yi wala daal di ciy def leneen ak leneen yow dañ laa wax rek ne da nga jël loo xam ne rek mën naa masquer li nga xam ne moom mooy euh, tâche yi nga xam ne moom moo nekkoon ci sa kanam moo nekk ci sa kanam wala itamit euh, am na nu sa kanam mel lakk na wala am na nu moo kii ñu defaral la ko loolu mun nga koo defar sans problème loolu amul benn problème bu ci nekk waaye itam bu fekkee def nga loolu ba pare kenn waxu la na nga jël ay pastel àla maquillage yu rouge wala yu verte nga ne da nga koy gën taarale sa kanam loolu kenn waxu ko xaraam liñ la wax daal na jéem a seet ayib yooyu nga xam ne moom moo nekk ci sa kanam nga seet noo ko masque nga di génn nga daal di ñibbisiwaat waaye itam bu fekkee ne wax nañ la loolu dañ la ko wax rek pour nga suturaal sa kanam waaye kenn waxu la li ñuy def ci kaw bët yi wala ci biir bët yi ak ci tunjeeg yooyu kenn wax la na ko ci boole loolu kenn wax la na ko ci boole dañ la nee rek nanga nga suturaal sa kanam après bu fekkee na ñibbi si waat nga daal di koy dindi waaye leneen lu ci mën tarax tamit kenn waxu la ko aywa am na ci yenn yoo xam ne yi itamit waxoon nañ ko sànq itam dañ ciy dellu siwaat nañuy moytu yenn yi yenn yi boo gisee ñu wax nañ koy moytu am na ci ay ñenn ñoo xam ne mën nga koo def fekk yow am jubluwuloo ci lenn fekk yaa ngi lor keneen fekk yaa ngi lor keneen nit ki mën ngaa taaru mën ngaa defaru fekk jëliloo ay maquillage jëliloo ay produits di ko def sa kanam fekk yaa ngi indi ay gaañ-gaañ sa bopp ndax maquillage loo ko yàgg def fii ak ay at ca kanam sa kanam day déformé wu boo ko yàggee def itamit nit ñi yàgg laa gis toujours yaa ngi maquillé wu bu fekkee nit ki ñëw na sa biir kër fekk la mag yow loo beneen kanam lay gisaat du gis ba bu kanam boo xam ne boobu la du gis du ko gis beneen kanam lay gisaat kon ah, kon doo xam ne lii ñu ngi koy def loolu dañ koo war a moytu dafay indi fitna te dafay yee aussi tamit ay ah, nu mu tudd yenn shahwa yoo xam ne yenn bànneex yoo xam ne yi waru fa woon a feeñ waru fa waru fa woon a yee yee nu mu tuddati ah, génn Euh, yooyu yenn façon yi jigéen ñi nga xam dañ koy def loolu tamit mën na am tamit mu daal di koy yee te itamit nuru nuru itamit ñi nga xam ne ñi tamit ñoom ñoom ñooy euh, occidentaux yi nga xam ne dañu fee ñëw jënd suñu diine indi leen ñu leneen loo xam ne lii euh, moom mooy ñoom lu ñuy dund est-ce que ñoom ña ngi koy def wala est-ce que ñoom am na façon beneen fu ñu koy defee mën na am loolu dagan na ci ñoom waaye mën na am loolu benn dafa xaram ci ñun ñaareel bi aussi tam mën nañu indil ay loraange yoo xam ne yi bu ëllëgee du ñu xam fan lañ koy fajee wala du ñu xam fan lañ koy defee moo tax gis nga dermatologue toujours boo fa demee dafay am ay gàllankoor yi nga xam dafa koy am dafay jànkonte ak ay gàllankoor ci ay jigéen ñoo xam ne dañoo dem ba yàq seen bopp finalement sax léegi dem nañ ba xam ne amatuñu rusukaay te il faut ñu daal di génn ñu daal di noonu nga xool seen kanam yi wala seen yaram yi timpi tàmpa yi ci nekk ñaari couleur wala ba ñetti couleur yi ci nekk loolu lan moo la ko indi lu dul sa bànneexu bakkan moom nga toppoon te wallaahi xaalis boobu nga doon jël di ko dem di ko yóbbu ci mbir yu mel noonu mën nga ko woon dugal feneen loo xam ne mën na doon dundal sa yaram wala mën na doon indil tamit yeneen euh, produit yoo xam ne itam mën na la koo indil ci yeneen anam yoo xam ne xëy na bu fekkoon defoon nga ci mën cee dund ci dund boo xam ne bu ànd ak dal lay doon ba tey rek mu ngi dëgg rek daal mu ngi dëggal ne képp koo xam ne kii dangay toppandoo ay nit wala ay ñoon yaa ngi leen di toppandoo ci loo xam ne li nekkul ci lu baax yow ak ñoom yéen yéen a yem kon bari na ci loo xam ne daal li nga xam ne moom mooy dëgg ba nekk dëgg daal ñun jigéen nañu bàyyi fitna nañu bàyyi fitna yi nga xam ne ñu ngi koy fitnaal suñu góor yi nañu bàyyi fitna yoo xam ne ñu ngi koy fitnaal sax ci suñu biir bokk na ci sax nii am na sax ne euh, ay jigéen yoo xam ne tamit am na noo xam ne yaa ngi koy def sa mbokku jigéen mu nga koo fitnaal ba mu jur yenn yi ci diggante ay jigéen sax ba mu jur yenn yi fekk yow ci sa fitna rek la ay waa yi nga xam ne yow yaa ngi ko doon def loolu mën na dem ba nga xam ne mën na jur loo xam ne musiba bu rëy lay doon ci diggante ay jigéen mu xem am xemem boo xam ne bii mën na faa judd te loolu yëpp xam ngeen ne loolu ci mbir yu mel nii rek lay doon kon li nga xam ne li daal loolu la war nañ koo daw war nañoo daw ci li nga xam ne moom la yàlla tere ñu bañ cee euh, abusé wu bu baax loo xam ne li itamit ñu ngi koy def tam fi nga xam ne foofu lañ fa yàlla yem loo tam ñu daal di koy def li nga xam ne li itamit am na ci yenn ulama yi tamit wax nañ ñi ne maquillage bu simple boobu dagan na am na ay ulama wax yoo maquillage bu simple nga daal def tuuti poudre wala tuuti pastel wala tuuti euh, genre pusngal ak yooyu loolu mën nga koo def am na ñoo xam ne wax nañ ko waaye itam Euh, nee nañ itam bu fekkee tamit yaa ngi koy def tam bul ci am tamit ak njeexit tamit euh, nu mu nu mu nu mu tuddati nga bul ci am tamit saxawoon bul ci am plaisir bu fekkee ne am na koo xam ne kii tamit yaa ngi koy def bul ci amee plaisir comme di olama yi wax daal mun nga koo def boo xam ne bii lu woyof la rek nga ne xaaral dama daal def lu woyof daal di dem dewuma xew dewuma fenn lu woyof rek laay def ku ñëw fekk ma ci wala bu fekkee ne maa ngi génn tamit ma daal di koy def aywa lu mel ni tusngal lu mel ni ay jaaro lu mel ni fuddan waaw lu mel ni aussi tamit euh, euh, nu mu tuddati euh, chaîne boo xam ne bi yaa ngi koy def tamit ci say tànk am na ci ñoo xam ne ñi tamit nee nañu dagan na ndax loolu kii na anta waaye itam lu ci mënta nekk daal am na ci ay ulama yoo xam ne ne nee nañu loolu itamit daal mooy maquillage boo xam ne bii bu woyof la loolu kenn dagaloon ko fuddan moom laabaas amul amul dara loo xam ne lii moom lu ci nekk la waaye itamit yenn yoo xam ne itamit mën nañ koo def di ko taarale suñu karaw yi dem na ci ba nga xam ne léegi fi mu nekk nii léegi même bu fekkee ne yow coiffé wuloo zina aussi itam même bu fekkee ne coiffé wuloo demuloo coiffé wala musóor yow mën ngaa def zina ci sa muuraay façon muuraay yi nga xam ne léegi indi nañ ko muy muuraay fashion yi nga xam ne dañ koy def ñetti muuraay wala ñeenti muuraay wala ñaari muuraay rawalante ko defar ko ba mu rafet loolu lépp tamit bokk na ci zina est-ce que loolu itam loolu la ñu euh, lislaam sant keroog bi nga wax ne bi yàlla wàccee ne euh, nee na nañu wàccee suñuy su suñuy muuraay dañ ko def waaye loolu lépp aussi tamit dañ ko war di euh, seetaat bu baax te itamit am na ci ñoo xam ne tamit seen muuraay tam même bu fekkee ñu ngi ko def ziina tam dina leen topp ba xam ne ne seen façon colkin tamit nekkul loo xam ne tamit lu yàlla gërëm la waaye itam am na ci ñoo xam ne tamit nee nañu mooy maquillage bu simple beeg ak bu fës bi yépp benn la kenn warul génnee bu simple bi waxuñu la sax na bu fekkee ne tamit bu euh, kii la euh, ba ci parfum aussi tam ba ci parfum parfum léegi gis nga am na ci jigéen ñoo xam ne ñi balaa ñuy génn dañu loo tam ci ci ci zina la bokk da ngay gis dañuy euh, nu mu dañuy dañuy def parfum am na ci ñoo xam ne parfum cuuraay la ñuy def am na ci ñoo xam ne dañuy jël cuuraay takk ko ci seen ci seen ci seen lafu yére yi am na ci ñoo xam ne dañuy suuru balaa ñuy génn est-ce que loolu islam daganal na ko yow sa cuuraay bu fekkee ni yaa ngi koy def wala itam sa parfum bu fekkee ni yaa ngi koy def def ko ci sa biir néeg dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo ko moom waaye bu fekkee itam yow loolu yaa ngi ko denc fi nga ko denc foofu nga ko denc te itamit loolu doo ko utiliser tànk que yaa génnuloo loolu itamit dañ ko war di moytu bokkul ci li nga xam ne moom la islaam wax aywa islam daal lu wax moom mooy nañu moytu di génnee li nga xam ne moom mooy bànneexu euh, bakkan bànneexu yaram yi nga xam ne dañ koy génne ay waa muy ci lu jëm ci col ki wala lu jëm ci li nga xam ne moom lañuy defee suñuy yaram ak lu jëm li nga xam ne moom la ñuy soppee suñu yaram ak loo xam ne itam moom la ñuy utiliser ci suñu kaw kawari bopp yi xamuñu isamit docteur euh, xamuñu ndax docteur moo ñu ko wax wala xamuñu ndax docteur wax ñu ko ndax lépp lu islam di wax rek mu ngi ko tënk ci li nga xam ne ci chariatul islaam bu fekkee ne ñun ñoo koy def dañ fa tënku kon ñuy wax yow mi nga xam ne yow yaay jigéenu jullit bi ñu lay naan nanga moytu nanga moytu ci yenn yoo xam ne yi sa diine euh, nangulul la ko te itamit na nga sori itamit ci bànneex bakkan yi nga xam ne moom moo nekk ci suñu àdduna tey bi te loolu lépp bu fekkee ne itamit delluwaat nañ ci shariatul islaam bu fe lii yépp yàlla bëggul luñu lu dul ñu daal di ci tegu ci siraatal mustaqim kese bëggul itamit lu dul tamit ñu daal di ñoŋal tamit suñuy santé suñuy euh, wér-gi-yaram kese la ci bëgg ndax gis nga ki xeesal ba bàyyi ak ki mësul xeesal duñu mës a nekk benn duñu mës a nekk benn koo xam ne ki itamit dafa mës a nekk naturel ba du du jël ay euh, produits di ko utiliser ci kanamam ak ki nga xam ne kii fu ñu ko fekk dafay jël produit di ko utiliser kanamam ñoom ñaar du ñu mës a nekk benn ak ki nga xam ne kii itamit fu ñu ko fekk moom ci taaru àdduna rek la nekk ak ki nga xam ne dafa simple tamit du mës a nekk benn kon islaam lan la ñu bëggal lu dul ñu daal di ciy tegu ci yoon wi nga xam ne bi moom mooy yoonu njub te islam yàlla itamit bu fekkee tamit topp nañu li tam li nga xam ne lii moom la moom la ñu sant moom la ñu digal bu fekkee ne dem nañu itamit ca gannaaw ga wala bu dee tamit dem nañu ba xool ci mujjantal ga du nekk lu dul mu ñuy sariloo li nga xam ne moom mooy li indi loraange ci suñu biir yaram lol dong la ci suñu borom subhanahu wa taala bëggal kon yow mi nga xam ne yow yaay jigéenu julli bi da ngaa war xam nga war a comprendre sa xel itamit dafa war a ci li nga xam ne moom mooy ki nga xam ne kii moom mooy aji xam moom mooy kii aji xam moom mooy ki nga xam ne bañaluñu dara xanaa loo xam daf indi loraange te lépp loo xam ne itamit lu ñu indi loraange bu fekkee tamit sori nañ ko jàmm dong lañ ciy gis te itamit euh, jàmm jooju ci la ñuy gën a xamee suñu bopp ci jàmm jooju itamit moom moo ñuy euh, sori itam ay stress yoo xam ne yi euh, waroon nañ ko mënoon a jànkoonte ci suñu biir dund te loolu lépp itam bu fekkee topp nañu li nga xam ne moom la yàlla wax loolu lépp mën nañu koo ñàkk mën nañu koo ñàkk bañ a am te itam daf ñuy gardeloo suñu yar te itamit euh, di ñu gardeloo suñu euh, suñu suñu suñu suñu suñu yar te itamit di ñu yar ci yarin woo xam ne bii ci yarin islam la moom suñu borom pour ñu daal di tënku ci loolu comme bu fekkee ne yan yàlla suñu borom moom moo mën a waxante soxnaa yonent bi sàkkaa ñun ñun fan la ñu nekk kun ñun euh, ñun dañoo war a am ay gëstu ak ay góorgóorlu jéem a seet ci lislaam bi nga xam ne moom la ñuy dund lan la ak lan lañ ci sant li nga xam ne lii moom mooy baaxal suñu yaram ak lan lañ ci sant ci li nga xam ne lii bu fekkee itamit def nañ ko tam mën na ci am tamit ak loraange kon fi nga xam ne fii moom mooy fi nga xam ne moom mooy moo foofu rek la ñuy jeexale moom mooy yow mi nga xam ne yow yaay jigéenu jullit bi ah, yow ku tedd ki yi nga xam ne yow yaay jigéen bu jullit bu tedd ki li ñu lay wax daal moom mooy na nga moytu da ah, nga moytu tabarruj moom na nga daal ah, jaay ndax suñu borom subhanahu wa taala mu ngi wax ci alquran bu tedd bi tam mu ne waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula lolu suñu borom wax mu del wax na wa aqimna salat wa atina zakat legi lañu moytu li suñu borom wax subhanahu wa taala nañu bàyyi jaayu dox di bonde di defaru ba yaakaar nañu ñoo ci nekk yaakaar na ne bu ñu xëyee bu ñu fekkee ne ñoo ngi dem léegi dañuy bënn suuf si wa ita bu fekkee ne ñoo ngi dox mën nañoo yegg ci kaw asamaan dañuy xool aussi tamit ni lu ñu def ak bu dee ñoo ngi génn dañuy yaakaar ne ne àdduna bépp ñu ngi ñuy xool ci kaw loo xam ne def nañ ko ak suñuy takkaay yu rafet yoo xam def nañ ko doxin bi sax dafay changé waxin bi tamit dafay changé même ni ngay xoolee dafay changé même ni ngay toogee dafay changé même ni ngay lekkee dafay changé loolu lépp ci tabarruj la bokk loolu lépp aussi tamit yaa ngi wane sa bopp léegi fi mu nekk léegi euh, ak rëy dugg na la ndax léegi da ngay yaakaar ne léegi yow ñëpp yow la ñuy xool fekk or que yow mi amaana sax nañuy bu ñu lay xool mën na am sax dañu laa yërëm ci li nga xam ne noonu nga nekkee suñu borom dafa ne foofu jigéen dafa war a teey jigéen dafa war a maandu jigéen dafa war a téye tànkam jigéen dafa war a ànd ak dal li ñu ko sant moom mooy na sax ci biir néegam na toog ci biir néegam waaye jamono bi tey gii indi na tey gii jigéen ñi mënutu ñoo toog jigéen ñi foog ñu daal di génn waaye bu fekkee ne yaa ngi génn nga génne ci anam bi nga xam ne noonu ko islaam santé na nga génne ci anam boo xam ne ku la gis daf lay naw na nga génne ci anam boo xam ne ku la gis daf lay jéem a toppandoo na nga génn ci anam boo xam ne yow ci anam ku bëgg sa bopp nga bu da ngaa bëgg sa bopp gannaaw bi nga xam ne euh, gëm nga sa borom yaa ngi topp sa ndigal borom ak ndigal yonent bi sala sallam nit ki da ngaa war a bëgg sa bopp fonk sa bopp même bu fekkee ne sax nekkul sama jëkkër laa defal waaye man damaa war a defar sama bopp wut sama produit yu baax comme ni ko docteur bi waxee woon sànq defar sama bopp di sol sama yére yu baax di am samay jiitalukaay yu baax loolu moom mooy ziina yoo xam bi yu nëbbu la fekk yow yaa ko xam ak sa borom kër ko xam wala itamit loolu moom mooy euh, taar yoo xam ne itamit mën na am tamit seen moroomu jigéen bu fekkee toogandoo nañu mën nañ koo waxante wanante ko ci suñu biir loolu la loolu moom mooy taaru jigéen foofu la jigéen war a yokkanteeg moroomam taar waaye nekkul ci mbedd mi mbedd mi euh, fitna dong la ñuy jural mbedd mi aussi tamit la nga waroon a wane yow si secret yëpp léegi génnee nga ko amatula benn secret boo xam ne bi yaa ngi koy nëbb te jigéen li baax ci moom muy am ay secret yoo xam ne yii euh, saa su nekk bu fekkee ne génnee na benn ñu gën koo bëgg waaye saa su nekk bu fekkee ne génne na benn rek nga xam ne jëkkëram dafay gën da koy gën a naw wala jëkkëram da koy gën a bëgg yow ci sa bopp sax dangay am mbégte ci sa biir xol yow ci sa bopp dangay am mbégte ci sa biir xol ndax maa ngi defar sama yaram maa ngi defar loo xam ne bi aussi tamit nation bi la tamit dañ koo soxla ndax bu fekkee ne xool nañu ba xool dañu ne diwkat moom ni mu mel macha allah man dama koo bëgg dafa simple fekk yow yaa ngi am say affaire yoo xam ne boo ko waxee amaana nit ñi sax duñ la gëm waaye yow yaa ngi defar sa bopp comme ni ko docteur bi sànq waxee nit ki yow yaay defar sa bopp yaay am sa conscience bopp. nit ki yow yaay defar sa bopp yow yaay am aussi tamit say plaisir bopp yoo xam ne yow yaa koy defal sa bopp ndax jigéen fu ñu ko fekk rek dafa war a set dafa war a am taar dafa war a tegu aussi tamit ci ni ñu koy waxee dafa war a tegu tamit ci temps nga xam ne yow foo xam ne sa jëkkër fu fa mënta dem xelam day nekk ci yow ay bëtam tamit dafay nekk ci yow. fekk doo dem jël ji taar di ko àbb wala dem di jënd ji taar di ko jox sa bopp taar bi nga xam ne moom la la yàlla jox exploiter boobu taar bu ko defee nga daal ciy am mujj bu rafet ndax suñu borom bu ñu waxee gannaaw waxee waxar na fii bu yitiku na lan la ci toppal wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil uulaa wa aqim na salaata wa atina zakat ah loolu aussi tamit bokk na ci taar taaru jigéen fekk la yaa ngi muuru say cër ba mu kii nga daal di nu mu gën a rafete yaa ngi jàpp jàpp bu sell di julli julli bu sell loolu tamit ci taar sa jëkkër bu la fekkee yaa ngi julli julli bu sell loolu si tamit ci ci ci taaru jigéen la bokk. aussi tamit daal li nga xam ne lii euh, foofu la ñuy euh, wax suñu borom kër fi ñuy wax tamit euh, suñu mbokku jigéen ñi nañu bàyyi itam di génn génn yoo xam ne génn yu ñàkk fayda la aywa sa jënd nga mbubb mu rafet dàll yu rafet. Euh, def nga say euh, maquillage bu rafet léegi maa ngi dem doxantu ji marché HLM wala maa ngi dem kër diw wala maa ngi dem kër diw loolu ngay war a def yëpp nga xam ne génn-génn euh, yu bari yoo xam ne itamit amaana mën nga ko woon a def ci sa biir kër toppatoo sa kër toppatoo say njaboot toppatoo indi nu mu tuddati taar bi nga xam ne bii jënd say affaire yu rafet yoo xam ne yuy taaral kër la wala yuy taaral néeg la yooyu yëpp. nga daal di ko fay bàyyi sol sa daal nga ne maa ngay dem wane ji sama taar ci mbedd mi wala itamit fekk bu fekkee ne maa ngay dem fa may dem kat xew ba may dem sama mbokk dina xam ne sama moroomu jigéen dina xam ne dikk naa wala sama moroomu jigéen di nga xam ne bu fekkee ni ñëw naa ne nga xam ne star dikk na loolu foofu nga ko fay defee waruloo ko faa defee fi nga ko war a defee moom mooy sa borom kër bu fekkee ne yegg si na ci biir kër gi na fekk léppam pare na loolu moom mooy taar bi gën a rafet ci taaru jigéen fekk si këram pare néegam pare na lalam pare na ay doomam tamit defar nañ leen togg bi defar nañ ko ba mu rafet taaral nañ ko ko napp yi napp yu taaru la indil ko kudd yi kudd yu taaru la jigéen foofu la war a am taar ak taar bu jikko loolu aussi tamit bokk na tamit ci taar boo xam ne bii euh, ñu ngi koy conseillé tamit ñun suñu bokku jigéen ñi ñu daal di am yooyu taar yoo xam ne taar yi nga xam ne moom la ñu yàlla wàcceel ñu daal di koy def kon ñu ñuy wax rek moom mooy nañu góorlu te euh, moytu tere yàlla ndax bu fekkee ne euh, moytu wuñ ko rek mën nañoo indil yeneen gàllankoor te itamit euh, bànneexu àdduna wala seytaane mën na la indil loo xam ne lii toujours lu mu lay diggal rek moom mooy loo xam ne lii fin bi wala mujjantal ga doo ci am doo ci góobe lu baax kon lii lañ leen indi woon ci At Tek Taar ak loo xam ne itamit moom moo koy tënk ci was yu waxtaan bi nga xam ne moom lañu indiwoon indi tey incha allah. incha dégg noonu nañu li nga xam ne moom lañu déng ci taar ci maquillage ak fi mu wareek liñ ci war a moytu mu mel ni euh, thèmes yi dañuy dugalante daanaka kenn ku ci nekk li nga andi boo ko xoolee bu sa moroom ñëwaatee rek. faaw mu am lu mu tibb ci li nga andi woon am leneen loo xam ne dina ko ci sof dina ko ci dolli loolu moo waral ñu jëloon li nga xam ne mooy maquillage utal ko pàccu boppam xaj na loolu li li mu jot a wax rekk dañuy dund tey ci jamono joo xam ni roy dàq bi daf ñu sonal daanaka jigéenu jullit bi léeg-léeg day mel ni ku fàtte boppam du du du xam mooy kan ndax mën na solo ba pare ci ni ko diineem sante mu soloo ko macha allah waaye pour moom euh, day des li tax mu jàpp ne des na mooy wax dëgg euh, li ñuy tuddee taar ak ni ko jamono déggee moom dafa jàpp ne faaw mu def loola loolu moo koy àndil dootul yem ca frontière ya mu ko waroon a yemale muy biir këram nga xam ne jaamu yàlla lay doon ci moom digganteem ak borom këram su dee am na ko wala ci biir fameem wala digganteem ay jigéen ñu mel ni moom waaye day nekk loo xam ne dafay jàpp ne sax il faut bitti bi xam ne moom tamit nii la mel loolu moo koy poussé ci mu xool ban poudre lay def ci kanamam léeg-léeg nga gis koo xam ne poudre ba muy def ci kanamam sax dalay da koy far changé kanam nga xonq cooy loxo yi bu ko taalalee mu ñuul est-ce que du du obligé sax di diwaale loxo yi pour mu xaw a nuroog kanam gi waaw loola du ca yem waaye faaw jël yéen ya pastel ko yaakaar naa ne léegi pastel ñun ci mag ñu njëkk ñi ñun ñoo xamoon pastel waaye xale yi te tatouage yi ñuy def léegi nga xam ne ngan di pastel yooyu dina roog xaamaan ba daan joué film Moussa yooyu nga xam ne daanaka rëdd bi ñu la rëddal yow sa yéen yi rek jël na sa jëbi jëlaale na loo xam ne ku la séen il faut mu am lu ko attiré du mën a xab sax yow li la poussé est-ce que taar ngay ut daanaka xew-xew rek lay doon waaye rafetaay booba doo ko ca mën a gis euh, doo yem ci loolu waaye xef ya tey jii booy waxtaan sax ba wax ne yokk xef moom daganul yow ci ñi tardé ñi ngay bokk ndax yematuñu rek ci ñu jàpp ne sax borom xew yi ñoo koy def waaye dañ toll waaye sax ak nag taar bañ ci doon ut dootoo ko gisati ndax da gis koo xam ne genn wàllu bëtam yëpp lay yóbbu waaw bi mu defee pause rek nag bëtam tolloon wàññi na te lu baree baree bare suy xool li euh, oustaz Aliou Sall doon wax ma ngay xapp xappal ba mel ni kuy jooy <laughs> ndax xamoo xef baa ci dugg xamuloo ay problème la nga gis koo xam ni daanaka sonn na wax dëgg ci na muy génne maquillage boo xam ni xamatuñu sax kii maquillé wu ndax xew moo tax sax muy maquillé wu ak ki nga xam ne euh, dafa maquillé wu pour rek benn maanaam dafa war a génn lu simple la war a def daanaka waxtu bu nekk rek dafa mel ni dañuy exposé wu maanaam il faut ñu ñu fés daal il faut ñu fés dafay mel ni maquillage bi su feesul baaxul waaw na couleurs yi génn euh, farage yoo xam ne foo ko rëdd daanaka doo soo rek ñiy sëmb ci koñ bi ndax lépp day day nekk ay couleurs yoo xam ne foo tollu rek ñu seen la

moy wane ne rek ay ay ay nax la yu nek ci ginnaaw dafa yow koku du yow deug deug du yow kon nañu wat yi nga xamne mo naturel yàlla daganal te bo gisee yunus bi sallallahu alayhi wasallam teunkel ñu ci walu zina nga xam ne da fay insister wat surtout ci partie yi nga xamne ci la maquillage di feñ ba ci hadith ba su fekke ne juumu man nim ko waxe won mom sallallahu alayhi wasallam la'na allahul wasila wal mustawsila yàlla dafa rëbb ki yok est-ce que yokk boobu dañu koy yemale léegi rek si suñu kawaru bopp yi est-ce que léegi pause boobu du ci dugg est-ce que suñu wey yi nga xam ne dañoo jàpp ne warul a gàtt te bokkul na ci ci fitra ci li yàlla taa defal nit muy lu lu naturel mu am yoo xam ne bu guddee ci moom daf ko war a wàññi wecc ci la bokk waaw sànq euh, suñu dermatologue bi mu ngi ci doon wax nu ñuy dëgërale suñu wee waaye dama yaakaar ne jigéenu jullit bi foofu tam war nañu ko xamal taaram dëgg-dëgg mooy nu mu gën a dëppoog di ko diineem sant kon wee kenn du ko yokk we war nañu lu mu néew néew néew bokk na ci sunna yi sax guddi aaju maanaam jeudi ci ngoon ba ci vendredi bi daggal say we su loolu mënul ne du bul dem a dem a dem ba bàyyi sa cër yi nga xam ne dafay am lu ciy yokk lu lu ëpp 40 jours su dee karaw wat ko su fekkee we la dagg ko yooyu yu ama am solo la ndax dafa am leneen lu muy génnewaat ci taaru nit ki yu bees yu muy yu muy juraat te soo ko fa bàyyee loraange lay doon benn gaa mu nekk feebar bu mu lay jural wala boog gaañ-gaañ boo xam ne dana la ko andil yooyu dañ koy fàtte moo tax bi mu waxee yokk du wax karaw rek la ñuy yokk waaye xef yi nga xam ne moom lañuy teg kon nañu xam ne pause dafa xaraam ci jigéenu jullit bi mu def ko moo xam weya la moo xam xef ya la lépp loo yokk da ngay daal di dugg ci cadre yokk boobu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko xaraamal lan la ci teg an naamisa wal muntamisa ki nga xam ne dafay épiler ah jël sa yéen da wàññi ko am na ñoo xam ne dañ ko doon dagg dindi yëpp ba mu set waaw am benn bu doon produit wala sax lañ set boo jël dindi ba mu set jël taay bi nga soxla nga defal ko sa bopp wala sax mu nekk loo xam ne tatouage lay doon ñu toppal la ko ba mu nekk ci form bi nga ko bëggee soppi nga yéen bi la yàlla jox ak forme ba mu la ko joxee loolu tamit dafay duggaat te loolu yëpp boo gisee day tudd ki koy def ak ki ko koy defal kon borom salon yi am ngeen problème ndax nii laa ko bëggee defalee ma ko nii rek tailleur dafa koy moytu quoi coiffeur daf koy moytu ndax faaw nga xam ni yow am nga wàll ci loola kon yàlla ñu yàlla fayal ñi ubbi léegi seen salon yi pour publicité diine waaye nañ fexe tam ba bu ñu leen dévier ci beneen mbir moo xam ne nit day ñëw ak bëgg-bëggam loola poussé la ba nga bàyyi mission bi nga waroon a jàllale ci biir société bi te mooy lan ngone taaru jullit jigéenu jullit nan la war a mel nan la war a rafetee yi yàlla daganal muy fuddan bu muy fuddangu wala tusngal bu muy tusngalu wala taar yooyu ban cadre la war a yem am na benn salon bëgguma tudd turam waaye xam naa ne am na taxawaay bu ñu doon def soo daan ñëw ne da ngay maquillé wu dañ naan su fekkee niqaaboo du doo nekkoon ne da ngay muur sa kanam ñoom du ñu pare pour maquillage la ndax xam nañ ne dañuy am bàkkaar ci bu ñu la defalee loolu ndax yàlla dafa ne yéen bi sallallahu alayhi ne ki koy def ak ki ñu koy defal kon kiy def sax moom lañ njëkk a wax kon du du du simple rek pour nga ne xaalisam la yor mooy fay nii la ko bëggee naa ko defal waaw kooku moom dafay wuutee nag ki amul fulla ak dignité ci boppam bi ko yàlla jox moom jigéenu jullit fay xaalisam dem salon mu jëlal ko temps bu rëy boobu mu koy jëlal nga xam ne nit dina am xew la salon bay jël ci heure am nit ñay ñëw di ko xool sax di ko fekk si tur ndokkeel ko sax duñ ko mën a gis temps bi yépp ma ngi ca salon ba moo xam ku ñuy takk la moo xam ku am doom la léeg-léeg nga dem ci xew ba ñibbi du gis ka la yëkkati woon ñu ne ma nga salon ñëw na léegi nuyoo nag delluwaat na salon dara do maanaam ay loraange yu bare bare nga joxe sa xaalis nga wëlbatiku nag jox leen seen sa kanam ne nii ñuy rëdd naan la téenal nga tourné boo ne lii sax def ma ko ñu ne yee lii nag moo xew dañ lay mujj soppi yow beneen nit ngay doon boo yegg si duñ la xàmmee kon nañu bàyyi xel loolu xadis ba teg ci lan alwaashima wal mustawshima ñi nga xam ne dañuy gajju di ñaasu ah di di di di di rëdd li nga xam ne moo di seen yaram ba ci ñi nga xam ne sax dañuy jamu jam ci sharia islaamiya na fekk rek ñu gis ne dafay faj ñu dem ba gis ne fii war nañ koo gàjji xotti ko pour génnee deret bu dee wala tuñ mi siiñ mi baax na pour ñu jam ko deret bu dee génn ci waaye su fekkee danga ko def rek pour taar dafa bokk ci yàlla xaraama léegi nag yaakaar naa ne jam-jam boobu yematuñu rek ci siiñ yi sax waaye tatouage yi si la dugg ndax suñu façon maanaam amul cëru yaram bu ñu bàyyi amul cëru yaram bu ñu bàyyi lan la ci yun bi salaa tam wal mutafallijaati lil xusn al mutaxayiraati xalqillaa jigéen ñi nga xam ne seen bëñ yi ni ko yàlla rangé amaana ñoom gis nañ ne bu amoon benn yoon sàkkar boobu sàkkalu yàlla boobu moo leen di gën a ñu koy jéem a ah écarté jéem a seet nuñ ko fellee ba mën a am sàkkaru yàlla xoolal depuis ñaata siècle yun bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci xadis bi tey nga gis ne ñun ñu ngi koy dund dundin woo xam ne wu doy waar la te lépp taar rek bëgg a rafet jigéen nag yàlla mi ko bind moo ko rafetal ba pare loolu il faut ñu xam ko benn jigéen ñaawul ndax bi la yàlla defee jigéen rek am na lum la mooñaaleeg loo xam ne yow loolu naturellement dafa nekk ci yow muy taar ndax loolu la bëgg nga mottali sa mission bi nga am sa digganteeg ku góor kim la war a booleek nga war a nekk koo xam ne da nga koy dalal kon am na noo xam ne mënoo ko mel léeg-léeg nag day doon càggante ci yar bi ci formation bi ci ci environnement bi ci yu baree bari yoo xam ne mooy topp jigéen bi ba nga xam ne taar boobu du xam nan la koy exploité waaw du xam fan la koy jaarale ndax set ba war mën na am bàyyi ko xel euh, xam yu war a ànd yi yooyu yëpp muy yar yoo xam ne yu ñu war a yar la day des ba léeg-léeg nag day complexe complexe boobu nag moo koy andi muy uti lu muy dool yi muy uti leneen loo xam ne du ñàkk kat bu dajee du dana dajeeg moom feneen yooyu nag moo lay fëkk ba soppi la nga doon beneen nit nekk koo xam ne yàlla dootu la gërëm ci sa jëf ndax yi ngay def yépp daf koy xaraamal nga wëlbatiku tamit delluwaat nekk koo xam ne da ngay loru ci ay loraange yoo xam ne day juddoo te ya ngay def ndax mboolem yi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala tere nañu ko mbokk yi ñu yëg ko ak ñu bañ koo yëg dafay nekk lu ñuy lor bëgg gum ñu bëgg moom borom bi subhanahu wa taala bañ ñu loru moo tax mu xaraamal ko ci ñu lépp lu ñuy jariñ bëgg gu mu ñu bëgg moo njariñ gi mu am ci ñun ba mënu la ñàkk moo tax mu waral ko ci ñun ndax suñu koy def di jël njariñ loola ba bu ñu ko bàyyee sax mu sanctionné ñu ci kon loolu suñ ko xamee rek suñu itte yëpp mooy lépp lu may bëgg a def lan moo ciy àtte yàlla ndax loolu mooy conseil bi jiitu ci yow pour xam ne sa njariñ la bu ne la dagan na kon lu am njariñ la ci yow su ne la xaraam na xamal ne lu lu lay lor la kon loolu moo tax borom bi subhana taala ci xéewalam yooyu moom mu lay taayale ko waxtaanam bi gis ngeen commencé ci ne yàlla tigge suuf ah asamaan si nature bi lépp yàlla subhana taala rafetal ko te doomu aadama yi ñoo tax loolu kon kenn du wax ne lu rafet dafa xaraam mais cadre bi ñu koy defee milieu bi ñu koy defee façon bi ñu koy defee matière yi ñu koy defee dafa jara bàyyi xel lu ci dëppoowul ak diine ñu sànni ko fële te xam ne rek loraange kese la lu ci dëppook diine nag ñu jël ko ak loxo yu set wecc jëriñoo ko ndax yàlla ñun la ko fi defal ñoo tax mu def ko kon ci cadre boobu xaj na duma jaaraat ci li mu wax ndax macha allah moom yàlla fa def ñun bi ñuy jàng alfalaa dañuy wax ni dem leen pikin ndax tey am na fa seen mbokk bu jigéen bu fay def waxtaan su ngeen demee ngeen xool ko booba ñun bi ñuy ñëw moom moom mi moo fa waroon a def benn waxtaan benn su ma juumul journée la woon bu fa amoon ci pikin keroog laay mas gis man pibliquement xale ku jigéen ku toog di waxtaan loolu jàpp ma man ba ma ñeme man pour war a man sax ne ah su ma fi jógee war naa mën a toog di wax kon moom lii du lu bees ci moom kon leçon yu rëy rëy la ñuy war a mën a jëlee ci jotaay bi man ak samay morom pour bu ñu fi jógee ñu fexe xam li ñu am li ñu diine may ak yi mu ñu tere ba incha allah lépp nekkaat yiw di barke sunu taar nekk jaamu yàlla nga xam ne dañ koy def ba pare am tuyaaba te loolu dara gënu koo neex taaru ba pare am tuyaaba fekk ñu ngi la koy bindal malaayka yaa ngi koy bind te yaa ngi taaru bokk nag taaru ba pare fekk yaa ngi am ay bàkkaar malaayka yi ñu ngi koy bind ñaar yooyu bokkuñu dañ leen différencier ba nga xam ne incha allah sunu lépp dina mujj nekk yiw wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon dama xamul ndax contribution yi lañuy kii wala waaw hmm? ah, na day sedd de contribution yi faaleen yi nee na dañoo yekk ba taaj ah, te climat bi de day xaw a sedd de loolu moom ah, daganut ci tent yi ndax comme wax nañu ne comme jigéen bu fekkee ne war naa taaral boppam am na ci ñoo xam ne ñi nee nañ euh, def ko xaraam na am na ci ñoo xam ne tamit nee nañ tamit def ko tamit dagat na waaye ci ëpp daal ci loo xam ne wax nañ ko ci olomaa yi ñenn ñi tam nee nañu boo koy def tamit na nga ko bu fekkee da am borom kër na nga ko taarle sa borom kër waaye kantaa rek nag sa mbirum bopp rek ne da koy def woon nañu nag ne am naa ci ay saxaaba yoo xam ne yi comme mel ni ñoom euh, Omar ibn Khattab ak ñooñu daal nañ doon tent seen karaw waaye ñu doon tentee seen karaw dañ ko doon boole benn ak fuddal ak beneen kii bu maro loolu mën nañ ko daan nañ ko doon def kon foofu bu fekkee ñu ngi fay jàngal rek mën na ne mën nañoo wax na ne tent aussi tamit foofu xaraamul waaye nag ci ak defiinam ci ak defiinam soxna maam Diarra la ciy doon waaw allah xanaa comme ni nga ci benn yi nga xam ne wax nañ ko sànq sax de xam nga ñun suñu cérémonie yi ñoom dafay am jaxasoo góor ñi ak jigéen ñëpp dañuy teew bu fekkoon ne yi day nekk jigéen ñi kese ñoom kese la yow mën ngaa def waaye nag ci kaw euh, maquillage bi nga xam ne moom la la islaam sant. waaye kantaan nag góor ñi dañuy génn comme ci suñu cérémonie yi léegi dangay dem solo nga ñëw euh, jógee salon de coiffure am foo jaar ñoo fekk góor ñi ak jigéen ñépp ñu ngi boole dajaloo te akolaati aussi mu def ciy am côté boobu nag wax dëgg yàlla islam moom daganalu ko waaye kantaan bu fekkee ni ñun dong la ñu ne neen kese la ñun jigéen kese foofu nag euh, islam bi moom nangu na ko soxna waa euh, safara lañu bokk am na ci ñenn ñoo xam ne ñi dañuy jël nee na dina am mujjub jamono ñoo xam dañuy jël ay buum comme lu mel ni euh, geenu fas di ko dóoree nit ñi léegi boo seetoo tey gi fi mu nekk nii mbugal mi léegi dafa bari comme léegi man sama gis-gis léegi comme policier ni ñuy jëlee seen genre yar yooyu jàpp ko di ko nit ñi léegi ko mën su morom lu mel ak itamit am na jigéen ñoo xam ne tamit kaasiyaatul lañu aariyaatul lañu ñooñu dañoo rafle rafle bi maanaam mooy dañoo amul ay yére yére yoo xam ne yi mën nañ koo sol fekk yére yu dagan la maa laa mumilaatun lañu ñooñu dañoo jeng ba pare di jenglaate boo gisee seen bopp yi ka asnimatil buxti seen bopp yi dafa mel ni comme bosu kii gi giléem kon ñooñu bu fekkee ne ñooñu yàllaa ngi leen yont bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi leen di wax ci euh, ci hadis dafa mel ni rek yow mi nga xam ne da ngay jël sa bopp façon bu la neexee noonu nga koy defee coiffure bu mu la neexee rek noo ko soxlee rek noonu nga koy defee mën nga koo wengal mën nga koo jubal mën nga koo def façon bu mu la neexee comme genre musóor itam moom mën nañ ko cee dugal kon loolu lépp daal liñ ciy wax rek ne yont bi nee na ñoom du ñu xentu àjjana xetu àjjana ñoom du leen xeeñ kon luñ ciy mën a jublu rek moom mooy lu jëm ci yokk daal lépp loo xam dafay jëm ci yokk loolu dafa xaraam te façon yokk bi façon coiffure bi ñu def léegi euh, façon bu nekk lañ ko ciy génne façon létt bu nekk dañ ko ciy génne façon musóor bu nekk dañ ko ciy génne kon loolu liñ ci mën a wax rek comme yont bi sallallahu alayhi wasallam comme lu mu wax rek ne ne ñooñu ñi nga xam ne dañ koy def ñi nga xam tamit dañoo rafle aussi tamit seen yére bu rafle yére bi aussi tamit nga moom yére yu xat yi wala yére yoo xam ne tamit l'islam santaani ko mu ne ñooñu de gisuma leen waaye ñooñu waa ay waa safara lañu te ñooñu aussi tamit bu ñu xentu tamit fekk na am nañu wax yokku nit yi waxtu bi yokku ba mu des nekk lu xaar mais bu fekkee ne sa bopp ba nga koy def jàpp lu sangu lu soxla ko mais baatu yokk ba rek xaraam la kon su fekkee ne dangaa jël li mooy périm nga ne ah comme man li am solo mooy mën naa ko laabee ndax bu ma bëggee sangu wala bu ma bëggee jàpp mën naa ko dindi ñu bari loolu la ñuy wax bu boobaa da leen li leen di nax mooy ne dañoo jël atte yokku rek teg fa fàtte li nga xam ne maanaam dañoo fàtte atte yokku ba ñëw li nga xam ne mooy laab toftal ci perruque mën naa am benn wuute bu mu am ak mèche bi nga takk ci sa karaw léttante ko ba mu fatt ba nga xam ne boo jàppee du doo mën a am jàpp wala boo sangoo doo mën a am sangu waaye atte yi nag mu war a doon luy soppi sa bopp ba mu pant ba mu nekk benn jëmm boo xam ne bokkul ak ni sa bopp formé wo moom atte boobu ma nga fa ak tamit riche bi muy am maanaam ya triche bi am jigéen ñu baree bari mën nañu tegee perruque góor goo xam ne taxul mu xam lu baree bari sa àdduna foog ne moom borom karaw la takk wala mu séen la ngay muuru xaj na la ngay lëmas bis bu nekk ci sa ginnaaw bopp foog na ne moom moom seet bi mu yor moom bu ñëwee rek dana fa fekk karaw goo xam ne bu dindee takk bi mu daldi di daanu ci digg ginnaaw gi fekk boo moytuwul moom maam jaaraayam yooyu nag naxaate yooyu itam dafa jar bàyyi xel ci jigéenu jullit bi su fekkee ne mu ngi mu ngi dund diine lu dàqonteeg sax nag muy nekk rëbb yooyu nga xamni yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ko ci euh ñukoy xaraamal mom moy bu fekke ne yaangi julli wala bu fekke ne yaangi sangu sangu euh, laab mo ngor lo ko def té aussi produit la bo xam bi tamit té ko téggi ko yépp tamit du ñak tam dina am tam lo xam da ci mëna tâche kon yaakaar naa ne daal pour yombalal mbir mi fuddan baa ngi fi mën nañoo fuddanu fekke émail bi aussi tamit euh, mën nañ koo ñàkk bañ a def comme loolu loolu coono kese la ndax bu fekkee léegi julliwuloo nga teg ko boo jullee ba pare booy waaj a julli nga daal di koy dindi te am na ci ñenn ñoo xam ne aussi tamit mën nañ koo dindi waaye mën na am tam dina dina am lu mu takk kon daal li gën nga bañ cee sonnal sa bopp li nga xam ne moo la gën a noppal tamit nga daal di ciy dem muy fuddan bi loolu moom mën nga cee dem waaw waaye émaay moom euh, daal moom wax dëgg kii daganul daal fekkee moom <coughs> wax dëgg yàlla foofu moom wax dëgg tatouage am na ci ñoo xam ne moom dafa xaram moom parce que tatouage am na ñoo xam dañuy euh, comme genre jam lay doon comme li maam jaara waxoon sànq rek di jàmm te gis nga loolu sax mën na laa indil ay gàllankoor wala mën na laa indil feebar boo xam ne bi doo xam foo koy waxee euh, euh, lu mel ni comme tamit ay gàjj loolu mën nañ koo gis moo xam dafa nëbb ba mu dafa feeñ yokk daal dara ci sa yaram ni la yàlla sàkkee bàyyee noonu waye defaat leneen tam ci sa kaw ci sa biir yaram moom wax dëgg yàlla gudd gàtt daal loolu tamit lu lu xaram la daal war nañ koo moytu ki nga xam ne kii moom la ñuy tatouage am lépp loo xam dafa xaram ki koy def ak ki ak ki nga xam ne kii moom moo koy euh, moom lañ koy defal ñoom ñaar ñëpp ñoom ñoo bokk àtte ñàkk bañ koo dem def dem seet ji leneen loo xam ne ni daal moom moo gën a baax dem di ko liggéey moom moo gën di liggéey yoo xam ne dafa xaram yow mi koy def ak yow mi koy defalaate ak ñu koy defal yëpp ñoom ñoo bokk àtte waa loolu soxna maam jaar waxoon na ci sànq jigéen vrai jigéen dëgg-dëgg moom mooy ki nga xam ne kii dangay yaakaar ne yow kuy rafet yaakaar yaa dàq ñépp benn ci sa set ci wóolu sa bopp ak xam tamit ni ngay doxalee amul benn jigéen bu ñaaw waaye daa fekk ne rek ne am na looy séen loo xam ne nii yow fekk na boo boo ko séentuwul woon sax nga yem ci sa bopp lool sax moom moo la doon gën a mën a arrangé nit ki il faut nga am confiance ci wàllu set foog nga am confiance sa tam ci wàllu tamit ni ngay defaree sa ndax am na tamit ñu bari ñoo xam ne ñi tamit ñu mel ni man lañu mën na am aussi tamit xamuñu naka dañuy organiser seen bopp xamuñu naka dañuy defaree seen bopp ci wàllum cet si wàllu aussi tamit ni ngay sole say yére ci wàll aussi tamit ni ngay maquillage yoo tam ci biir kër gi ci wàll tam ni ngay defee daal ni ngay am na ay façon yu bëri yoo xam ne intérieurement sa biir la yow yaa xam foofu tamit foofu nga war a gën a mën a foofu nga war a njëkkee sa bopp sax ci wóolu sa bopp foofu nga war a njëkkee sa bopp ndax am na ci ñoo xam dañu naan comme ci suuf la daal lu ma neex laay def ndax nit bu fekkee ne jàppoo nga daal euh, defar sa bopp leer na yow mii jigéen dàqu la te wóolu bi nga war a wóolu sa bopp aussi tamit euh, ci man di ma xam xam naa soxna maam jaar tam dina ci ñëw jikko bu rafet daal laay jikkee ma benn jikko bu rafet ñaareel bi aussi tamit ni sa jikko rafetee yàlla na fekk tamit sa comportement sa colin ak sa cet ak sa yëpp na mu mel noonu ndax bu fekkee ne nit ku wóolu boppam daal moom mooy ki nga xam ne kii dafay doylu ci ni ko yàlla def mu daal di ci yokk na ak cet yokk ci xel yokku ci xalaat ak muus mën a xam lu mu defaree boppam loolu tax waaw euh, <coughs> loolu moom suñu euh, ci suñu réew mi suñu réew mi fii mu nekk nii euh, l'islam dafee manqué manqué manqué ba nga xam ne foofu la mën a yem ndax dañoo jël mbirum tubaab bi daal di koy jiital ci suñu diine waaye du tax de ba tey lislaam fa mu nekkoon foofu rek la nekk donte kon ne euh, tubaab bi indi na fii bu ñuy wax bu ñuy def euh, éducation physique nañu def lu gàtt waaye l'islam fa mu nekkoon ak l'islam la mu tere ba tey da koy tere ba suba tamit da koy tere mën nañoo def éducation physique mën nañoo def euh, même bu fekkee tam mën nañoo jiital baax mën nañ cee teg aussi tamit euh, benn short boo xam ne bii tamit mooy kilot boo xam ne mën nañu mën na ñëw ba ci oom yi lan la lay yàqal du la yàqal dara di def sa éducation physique bu fekkee aussi tamit da ngay muuru te dëgër ci di nga mën a muur sa bopp du la yàqal dara fekk yow si yéen yëpp ngi muuru waaye bu fekkee tamit nee nañu léew ecole euh, bi de nee nañu lii ak lii la dañoo war a def éducation physique dañoo war a sol bi ay short yu gàtt yow nga daan ne comme loolu rek daruri la léegi naa ko defal sama doom wala sama doom na ko def loolu moom teguloo ci yoon ndax islam moom fa mu nekkoon fa la nekk te fa lay nekk tam ba ilaa yawmi diin li war daal moom mooy ci mun ñun nañu seet ni ñuy amele suñuy comporté man li ma ci jaaxal moom mooy yeneen réew yi dañuy taxaw di xeex di bañ li nga xam ne li loolu moom mooy li leen seen lislaam nangu li leen seen lislaam jox même bu nekkul sax lislaam yeneen réew yi dañuy bañ bu fekkee teg nañ ci ñoom dara waaye ñun fii Sénégal duñu mës a bañ lu ñu indi dañ koy tegoo waaye bu fekkoon ne bañoon nañ ñun jullit ñi suñu doom yi bu ñu def éducation physique du ñu sol ay short yu gàtt kon dinañ ko doon dindi ba mu jeex tàkk waaye dafa fekk dañ cee ànd ñu yow sax yow yaa njëkk dem jënd ji sa doom loo xam ne lu xaraam la ba pare léegi nag boo ko defee léegi tenue yi dañ koy dañ koy solal dañ koy même bu du éducation am na école yoo xam dañuy sol tenue pantalon yu seere la ñuy def jupe yu gàtt la ñuy def wala jupe yu gudd dañ koy xar ba ci ginnaaw yow léegi bu fekkee ne ñëw nga de nga bañ loolu nga jël même tissu bu nga delloo ko ca école ba nga demee sama doom bëgguma muy sol lii même bu ñu leen waxee sax damay jënd ji tissu nga jënd tissu ñawal sa doom li nga xam moom nga bëgg wala loolu islam bëgg waaye ñun duñ ko def ñun lan la ñuy def rek ñun lu ñu indi rek ñun daal ay mariiranoo rek lañu fuñ ñu teg ñu tegu foofu luñ ñu wax tamit ñu daal di koy bu ñu jógee nag ñu daal di jooy suñu islam bi suñu suñu doom yi nangam suñu doom yi fekk ñu ñëw gunge suñu doom ci loo xam ne ak yàqute islam daal nanguwul short nga def is nga def éducation physique islam nanguwul lu gàtt jigéen di ko sol di def éducation physique islam nanguwul loolu waaye bu fekkee nag sa doom da ko war a def seetal ko loo xam ne lii kat bu jox la bu ko defee sa doom dem def ji